waaw ñoo ngi lay sant lan bu baax ñoo ngi lay sant bu baax di la bëgg. Sapone war a bëre le premier mai fan la toll ci waajtaay bi. donc daanaka par nañ parce que xam nga koo xam ne athlète boo xam ne athlète buy compétir la chaque fois daanaka ñun finition rek la def chaque fois dañuy rectifier erreur yi génne ko ci li nga xam ne moom lay def chaque fois ay failles léegi nag boo xoolee sax tey séance yi ñu def nii c'est que juste pour régler rek la parce que moom kenn dootu ko jàngal bëri te xam nga ñoo ngi bëgg yàgg ak moom. parce que boo fi nekkee deux 2010 2011 ba 2018 xam nga ni kooku luñ mënti def rek yàgg nañ xam nga te du jaar-jaar boo xam ne dama ñëw rek nekk ci damaa jaar fu ne rampe fu ne jaar écurie yu ne doo ko ñëw de parcelle mbooloo waaw parcelle mbooloo bi ma ñëw tam dama fay fekkoon leto leto dem dénk ma écurie bi léegi nag ma toogandi fi maag booy yi màggandoog ñoom waaw. lan nga ko moytuloo ci mbaytin non mbaytin moom xam nga dañ koy xaar mu ñëw rek. waaw combat moom combat joni joni ndax ñun dañoo bëgg dem màggal daanu. xam nga ñun waa Daaru Muxti lañ te moom bu ma guddalee foofu rek du baax ndax gan yaa ngi ñëw daaru waaw ah, waaye gars yi nee na Mbaye nag wér gi moom kenn du ko laal ndax day mbot non am nga loo xam du ma wax ndax secret la ndax lamb ji yàgg nga ko seetaan mosoo gis ku mbot Franc déggoo ma de caaka fayoo gën a rëy Mbaye fop yaa ngi dégg bu ma la liminee du jeex ndax bëre simple ni ma koy taxaw ci bëri dóor noonu laa ko taxaw ci bëri simple te yow gis nga ko ndax buy bëre kenn ku la muy bëreel dama koy sant ne lii ak lii ak lii lay def lii ak lii mooy forum muy bëre simple di bëre dóor dama koy taxaw ba combat yi commencé ba combat yi jeex chaque fois sama xalaat danaa ko wax. sa xel dal na ci ni mu liggéey daal. non tranquille tranquille tranquille salaamaaleykum mbokk yi yéen ñuy suivre ci seen site internet lu luttetv.com tey nag ñoo ngi parcelle jàkkaarloo ak fran mu war a bëri le premier mai fële ci Kaolack mu war a bëri ak Mbaye Tine tey ñu ñëw laajte ko fan la toll ci entraînement yi pare na wala pareegul Franc ñu ngi lay nuyu ci luttetv.com. waaw Lamine maa ngi lay ziar di ziar waa luttetv.com. waaw di bëggee diaspora bi yëpp waaw tout ak monde bi nekk tamit quoi di ñaan yàlla na yàlla def jàmm ci dëkk bi waaw. nga am combat war a bëre le premier fan nga toll ci préparation bi. waaw préparation yi maa ngi ci ak ñi ma ci war a nekkal waaw damay ñaan yàlla rek ba bés ba ma nekk au top quoi mais sant nañ yàlla bu baax a baax. nice pare nañu quoi. kon combat bi su doon suba pare nga pour bëre. waaw ma bëre wax dëgg yàlla bu ñu nee suba la moom ma bëre man xale laa su ma amee combat ma ñàkk am combat yëpp damay entraîné. sa palmarès fan la tollu instant bi. man instant yooyu maa ngi ci six combat bii mooy jëm ni mooy sama septième komba te mooy sama septième victoire bu neexee yàlla incha allah. kon amagoo defet. non amagu ma defet. xam nga ki ngay bëreel. Mbaye Tine sama premier combat arène moom moo bëri spécial bi moo jëtli waaw le 29 décembre 2013 moom mu ngi bëre ak jet li quoi si moo daan kon moom moo la jiitu ci làmb. waaw moo ma làmb muy champion nag muy mbër bu ma jox cër waaw champion la xam nga waaw mu ngi dajak nag super champion lay dajal waaw super waaw mooy super bi rek. la ma mën a wax ci moom mbaytin suma su ma la laajoon Mbaye ci côté bëre lan nga mën a wax ci moom. bërekat la ndaanaan la day xeex day bëre parce que damay dégg ñu naan Franc mbëru mbapat la. Franc du xeex ak ñun bu bës baax na ñëw taxaw bu ko neexee ñu xeex ba pare soog a bëre. kon yow da ngaa nar xeex ak Mbaye Tine. dama dama ci dama ci pare dama ci liggéey bu baax a baax yàgg naa ci liggéey sax mais comme gars yi naan mbëru mbapat la ak dugg na fii ak nii na nañu yàlla yóbbu ba bës ba rek. xam nga dañ laa xam ci bëre est-ce que yow boo ñëwee xeex ak Mbaye Tine est-ce que loolu nekkul risque ci yow. non man Moussa képpaaru Moussa Dioum laa yoroo làmb ji kenn dàqu ci xeex comme man su ma mënul xeex rek ci man la. mais Moussa Dioum mën a xeex est-ce que tax na Franc mën a xeex parce que ñun gis ñu la ngay xeex. ba may nekk booy ba léegi moom moo ma yar sama papa la. yaay. Mbaye Tine yow ak moom ku dàq loolu damay bàyyi sénégalais yi jugé ko quoi waaw mooy bàyyi sénégalais yi ko. fooru Mbaye ci bëre lan la. non bëri na yaa yaa d'autres lu bëri la mu ne champion la. Mbaye Tine man xam naa ko si mbot. xam nga ko. ci mbot. waaw ak leneen ak leneen ah, du mbot dong sax gars yi damay dégg gars yi naan xaw ma day mbot quoi mais du mbot dong ak leneen ak leneen parce que man Mbaye Tine dama ko seetaan muy bëri jet li ku boobu dina xam ne Mbaye Tine ci newul ci bëre waaw. waaye waxoo ma yéen ñaar ku dàq bëre. non damay bàyyi sénégalais jugé ko sénégalais mën nañ jugé loolu. doole nag yéen ñaar ku wóob. non laajteel sénégalais rek. yow laay laaj laajte wu mu def ay émissions yu rafet macha allah Lamine. te waa jos lu si ëpp man commentaire yi dama koy liir quoi parce que émission yi saa bu duggee rek ma seetaan xam ma damay lire commentaire yi xam ma te ñooñu di commentaire noonu dañoo xam làmb cuunewuñu yow tamit xam nga làmb yow mi ci nekk xam nga yow ñooñu seetaan bërëwuñ li nga xam ci bëre ñoom xamuñu ko dama lay laaj yow ak yow ak mbaytin ku daax a bëre ku daax ku ëpp doole ku daax a bëre non loolu moo tax ma la dama koy bàyyi ak ñoom ñu jugé quoi après boo demee yow boo dugalee lii ñoom dinañ jugé quoi waaw Moussa Dioum nga wax mooy sa papa moo la yar lan la la wax nga moytu ko ci mbaytin Moussa Dioum xam lu ma wax nee na ma xale nga bu la kenn tee loolu moom Moussa Dioum ma xale nga bu saa su may bëri loolu la may wax nee ma xale nga bu la kenn tee demal gis naa ko sanq tamit ngeen di contact yéen ñaar te nee na combat bi dafa bëgg nga xeex nee na xeex la la la digal ci combat bi da ko travail ak man tamit boo déggee muy wax loolu da ko travail ak man da ci perte temps bu bari travail ko man ak ñeneen ak ñeneen quoi est-ce que nekkul ne da ngeen bëgg a nax waa ji rek ne ko dañuy xeex te xeexu leen. Lamine man làmb laay def ñëwuma boobu foofu di négocier lu mu laaj dama koy jox ci moom la dépendre na taxaw fu mu taxaw rek su bëggee ñu xeex bu bëggee ñu bëre lu ci bëgg rek ci moom ci moom la dépendre. te gars yi bëre ak mbëru simple yi sax lu ci ëpp xeex lañ leen di àndal moo kon côté boobu moom sooy boo nga waajal ci bu baax a baax. waaw incha allah amul benn problème merci ci conseil bi. gars yi dañ ni booy bëre ak mbëru simple. xeex nga koy andil damaa xam damaa xam ne xeex la lay andil rek. mais déggoo li ma la xara nee naa la man Moussa Dioum ngee Moussa Dioum man moo mooy mooy sama papa Moussa Dioum te dafa mën a xeex kenn daa ko xeex ci làmb ji yaay. combat bi kan mooy favori yow ak Mbaye Tine. combat bi non loolu lépp dañ ko laaj sénégalais rek Mbaye Lamine am na loo xam ne man mënu ma ci wax. combat combat Franc mënul ñàkk favori xam nga combat day taxaw sax ñu laaj mbër mu ne combat bi amul favori cinquante cinquante yéen ñaar kan mooy favori man su ma dinaa ko laaj yéen ñaar kan mooy favori te dina ma ko wax. ma xam ci làmb Lamine. bëre daan ñibbi loolu laa xam ci làmb mais ñi di ñii di seetaan lii ñoom xam nañ kuy favori xam nañ ku dàq bëre xam nañ ku dàq xeex. côté ambiance mën nañu xaar nga yëngal Kaolack bu baax. ah loolu jarul wax dañ koy yëngal ba mu yëngu dañ koy yëngal ba mu neex di wax waa Kaolack nag ñu xaar ma waaw waa Kaolack ñu xaar ma baax. TFP bi journée yi fi jaar maanaam Fallou Ndiaye journée mu tëgg yëpp ren dafa neex te combat boobu tamit dafa war a a yëngu ndax yow li lay seetaan ci mbappat bi da nga def ambiance. waaw dëgg la Lamine moo tax ma la maa ngi nuy waa Kaolack bu baax a baax parce que ñoom Kaolack foofu sama dëkk la sax ñoom dañu may béggee bu baax a baax waaw di leen wax ngeen xaar ma nag waaw ñu ñëw mobiliser stade bi waa Ndakaaru ñu ñëw waa Kaolack ngeen dalal ñu. mu mel parcelle muy yow ak Obali gis nañ leen tamit sànq ngeen di contact. waaw Obali champion la li ma la waxoon rek Lamine man yéene wu kenn lu bon su ma yéenee nit lu bon yàlla na këpp ci man li làmb day jeex après ku ne day xooli leneen. Goro Sock aussi muy sama doomu nday xam ma ñuy bokk science chaque jour ak suñuy grand ku ci mel ni xam ma ñoom Yékini Junior moom dama koy gërëm bu baax a baax. Modou Lo da nee moom mu ngi Kaolack le premier. waaw Modou. du yee waaw maa ngi ko doon seetaan quoi oui maa muy wax loolu quoi mais yàlla baax na comme moom lu mu wax rek nee na lépp xaj na daal mais lépp xaj na ci incha allah. Mbaye Tine di ko wax di ko ñaan di ko ñaanal jàmm Mbaye Tine maa ngi lay ñaanal jàmm baax a baax combat bi nag waa parcelle ñoo ko soxla moon soxla wuma ko waa parcelle ñoo ko soxla te ñun daa am fu ñu war a dem ci làmb daa am ñu topp ci ñu ginnaaw ah non waa parcelle duñ ko nangu di wax parcelle di leen tàllal loxo 1 ba 26. Cambérène un Cambérène xam nga yéen ñëpp ngeen ñaanal ma xam ma dooleel ma tamit quoi ñëw ñu dem Kaolack daani waaj yi mënu ma bañ a gërëm Moussa Sy maire parcelle gars yi seeti nañ ko xam ma dina jàpp ci affaire yi ku ci mel ni Amadou Ba tam mënu ma ko bañ a gërëm grand Nazirou roxo Amadou Ba mënu ma ko bañ gërëm grand Brise borom inte 10 grand yow sama mbokk nga di la wax nga jàpp ci affaire yi man sa raq laa xam nga ku ci mel ni sama benn copain bu ñuy wax baaba taal mu ngi États-Unis maa ngi koy gërëm bu baax chaque jour mbër foo toll ci affaire yi xam ma loolu rek dara la quoi xam ma di gërëm waa parcelles yi yëpp gërëm waa encore une fois waa parcelles yëpp ku ci mel ni Papis Jigaan tamit day sonn ci affaire yi xam ma gars daal bëri nañ ku ci mel ni ay grand Mor Diouf ñoom Laurent xam ma ak sama waa Gales sama yaay sama papa yëpp xam ma ñoom Moussa Dioum xam nga ñoom tim aigri parcelle mbooloo tam ñëpp gërëm naa leen sant naa leen sama coach Mame Less sonn na ci affaire trop boobu ba léegi mayu ma jàmm fajar kar ngoon kar xam nga di ko ñaanal yàlla lépp loo xam mu ngi koy seen ci man yàlla na ko gis xam nga ak li TV ci kaw ci kanam rek eh, di bëggee gaa yëpp di bëgg waa yoole ñoom xam nañ la may wax bu baax waa waa waa yoole yoole ku ci mel ne ñoom Père Bolle ñoom Mara ñoom baaba gis naa luñ def quoi gis naa ko di leen wax incha allah luy ñëw ci kanam moo dàq quoi di bëggee parcelle bi yëpp 1 ba 26 ku ci mel ni Papa tamit maa ngi koy bëggee père ba xam ma moom muy jàpp ci affaire yi père biram ñu ngi tamit maa bëgg tam mu jàpp ci affaire yi bu baax a baax parce que Kaolack la ñuy bëri waa parcelle lu ñu def mobilisation xam ma yi ne parcelle tamit ñëw jàpp ci quoi waaw kontaan nañ trop ci waa Lutte TV bégg ah